asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu rabbi srah li sadri wa yassir amri wa ahlul qudatan min lisaani yafqahu qawli mbokk sénégalais yi nuyu naa leen di leen siyaare di leen ñaanal jàmm seen mbokk la mi duñ jóob Watawasaw Haq ngeen partagé mu yaatu ma waxtaan ak sama mbokk ndaw ma waxtaan tamit ak euh, ñi nga xamante ni si ñoom la yàlla di jiital ci diine gi mais waxtaan ak ñoom ginnaaw bu ma denkee sama bopp ragal yàlla borom bi subhaana wa taala mu di ko dénk suñu sëriñ si ñu leen di ma di leen dénk ñoom it ragal yàlla ndax ragal yàlla moom ku nekk mën nga ko dénk nit sëriñ mën na ko dénk taalibe taalibe mën na ko dénk sëriñ ndax watawaasaw bil xaq watawaasaw bi sabr yàlla na nu yàlla gindi yàlla jubal ñu teg ñu siraatal mustaqim waa ñoom sëriñ si dafa am aw sas wu rëy wu nekk ci seen kaw bu nee diine rek maanaam tollu ngeen foo xam ni yéen ci réew mi ba bu nee diine rek ci yéen la ñuy xalaat yéen ñu ay doomu soxna ñuy mbàkke mbàkke yi ak sisi ak ñas ñasi ak ay dara ay dara yi fu nee lislaam rek seen xel ñu diine lislaam rek maanaam xel yëpp yar ci yéen lay dem bu nee kilifa yi bu nee sëriñ si ci lislaam ci yéen la jëm ci seen sant yooyu la jëm jëmut ci keneen duñ xalaat jóob jóob duñ xalaat kii duñ njaay duñ xalaat mendi duñ xalaat perera yéen ñooñu ngànq diine gi li ngeen yàq ci diine gi golo yàq ko ci àll sama gars yi leen mu yaatu maax leen lu tax maanaam yéen da ngeen toll doomu aadama yi foo xam ni seen sant yi moo gën a seer sant ñëpp bu nee doomu soxna rek yéen la ñuy xalaat ñeneen ñi daal duñ ay doomu soxna kenn waru leen tudd même boo leen waxee loo xam du dëgg kenn du ko weddi ku ko weddi ñu dóor la ku ko weddi ay yat moo lay fekke foofu même comme li ma wax nii sax. exemple bi ma joxe nii sax dafa garaaw dafa sensible quoi comme li am li am nga ñëw wax ko rek teg ko nii ci table bi rek gone yi commencé nañ leen saaga loolu dafa doon responsabilité bu rëy boo xam ne nit boo yoree responsabilité boobu nga doon kilifa war nga xool sa doxalin ndax yow même boo yàqee nit ñu nit sañu taxaw amul fit taxaw ne da ngay yàq. su ko waxee ay yat moo ko way fekk mais yàlla tamit dafa am cër borom bi subxanahu wa taala cëram moo ëpp seen cër fuuf yàlla moo leen gën a màgg fuuf yàlla moo ñu sàkk indi ñu ci suuf si ñu war ko jaamu. yàlla moomee ne amulul jinne ak nit lu dul benn objectif mu ñu jaamu yàlla jaamu yàlla googu doon ay ndigal ak i tere. ndigal ak tere yooyu mooy qaala laaw qaala rasul yàlla nee na yonent ne waaye dëkk bii di Sénégal ndigal yooyee yàlla anduñu fi kenn mënu fi wax xaala laaw xaala rasul boo ko waxee waa kër Maodo jóg fàqu yat boo ko waxee waa kër Bamba jóg fàqu yat lépp loo xam ni wuute na xaala laaw xaala rasul boo ko weddee yow da ngaa dingat Serigne Touba da ngaa kontar Serigne wax dëgg yàlla lii mooy li am senegal te lii du dëgg seeni xalaat la yéen yoole leen teg du dëgg wallahi du dëgg ay caaxaani kese la waxu yàlla waxu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ ko war a wéccoog waxi dara dara dara dara moo kawe ñëpp moo kawe seen maam yi moo kawe seen baay loolu da ngeen ko war a teg ci taabal bi mu leer moo tax da ngeen am responsabilité bu rëy. seen taalibe yi di dof dof lu di di rek di kii doo leen wax ak seen taalibe yi ñu nekk nit ngeen xamal leen ni yéen doo leen ay yàlla. ndax sa ab sëriñ bi mën a toog ci fëtëy nii ñu lay seen yàlla subhanallah ci dëkk l'islam ñu ne dëkk bii ñii ñooy représenté l'islam ci senegal nit toog ca ba waaja naan ko yow mbake yow yàlla nga mbake yàlla nga. mbàkke yàlla nga subhanallah ñu koy dégg vidéo yi di tas ñëpp di ko dégg nit ki taxaw weddi nga ne ko sam waaye da ngay dingat Serigne Touba quoi da ngay dingat Alaaji Ma da ngaa bañ yoonu Serigne Touba wala kii mais nit dafa mën a màgg màgg màgg ba nekk yàlla loolu du ay naxee mbaay li ngeen yàq ci diine gi golo da ko yàqu ci àll loolu mooy li am nit kuy taxawoo di wote wa yàlla kooku yaa ngi wote wa ci bokkaale waxoo dëgg bu ko fi kenn waxee responsabilité bi yëpp leen la seen taalibe ki ci la ñuy tojee kër ci li ñuy dóoree nit ragal leen yàlla borom bi subhanahu wa taala maa ngi koy dégg da ngeen di dee wallahi wallahi da ngeen di dee dugg ci kàmb firawna lii la doon wax ñu wan leen image yu firawna firawna doon wax yàlla la yàlla mbugal ko ba pare nag ne ab waaraate la goo xamante ni si waaraate googu da ngeen ko war a bàyyi ngeen koy xool bàyyi ci seen xel mais nit du yàlla mënoo leen fexe fexe fexe fexe ba Sëriñ Tuubaa doon yàlla waxatumaa nag ay sëtam ak i doomam mënoo leen fexe fexe fexe ba Alaaji Maalik doon yàlla mënoo leen fexe fexe fexe ba Baay Ñas doon yàlla ay nit kase lañ mënuñu dépasser doomu adama lii moo am nit jinne malaak loolu lépp lan moo ko waral ngeen yàlla yàllalu mooy yéen da ngeen war a dimbali maam yi ku mel ni maam Cheikh Ahmadou Bamba dañ ko war a dimbali jàppale ko ana nan la ñuy jàppalee du Ahmadou Bamba ma du Bamba ñun ñoo ko amal njariñ Alaaji Malick ñun ñoo ko amal njariñ Baye Niass ñun ñoo ko amal njariñ seen baay itam ñun ñoo leen amal njariñ ana nan leen leen amalee njariñ mooy ñu leen di ñaanal mooy buñ amee ay jëf yu baax yuy jëf ñu nettali jëf yu baax yooyu jëf yu baax yooyu ñoom ñu jëf ñun buñ ko jëfee ñoom dañ leen ci bindal ay tuyaaba dama bëgg a ñëw rek ci histoire ne leen yéen fen yi ngeen ñu tegal ñun yooyu lan d'accordul mais nekkul danoo contre Serigne Touba wala danoo contre Alaaji Malick dama leen ciy indil ay détails ne leen yan histoire lañ bëggoon tey ngeen koy nettali ci sunu mag ñi. histoire yoo xam ne histoire bi ngeen ko nettalee ci mag ñi dafay jariñ mag ñi ci boppam da di fekk seen bàmmeel histoire yooyu. histoire yooyu bi ngeen ko nettalee day defar sëy histoire yooyu bi ngeen ko nettalee day defar société lii leen soxla yëfi nit waxi nit. mais waxoo leen wàq nit ci mag ñi ay fen rek ngeen jël tegal ñu ci mag ma jox leen ko exemple dama déglu benn histoire boo xam ne ci Mamor Anta Sali ak sunu yaay soxna jaara yaayu Cheikh Ahmadou Bamba mais xool leen genre histoire yooyu li muy defar ba pare waxuma la defar de ñoom faatu nañ seen faatu am amal ñu njariñ ba pare ñun ñu amal leen njariñ mais defoo leen loolu de andi woo leen histoire nit ñoom yi doon def histoire yooyu nga xam ni day doon ab ñun dañu doon suñuy idole ñu dellu ci histoire yooyu ñun histoire yooyu amal ñu njariñ ñun ci sunu société ñoom ñuy defar société te faatu nañ mais li ngeen ñuy nettali si ñoom dafa defarul société lu dul yàq société. ndax bu ngi bu leen jëlee booy yi ngeen gëmloo leen benn affaire nga gëmloo booy bi ne ko yow sa sa kër àjjana taxaw na yow boo deewee sa bàmmeel taxaw na mais nit koo xam ni xalaatu dee. yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith yi muy wax yëpp lan la ciy wax dafay daf lay jiital daf lay bàyyiloo dee xel dee ay man kaana yu'minu billahi wal yawmil axir fala yu'zi jaar ku gëm yàlla nga gëm bis penc bul lor sa dëkkandoo gis nga dafa lëkkale foofu gëm bis penc gëm bis penc bi mooy lan la xew bis penc ngeen wax réalité bi li am li alquran wax pas comme ni ngeen koy waxee pas ni ngeen koy waxee yéen seen yow waxee am bopp yooyu alaaji Malick moo sol baxa moo fay ramwaatee le jaami ilal duxuli janna Cheikh Madou Bamba ilal duxuli janna nga gis benn satu sëñ Bamba sëtu alaaji Malick toog fee am na ñu ne euh, bu ñuy dekki yow mal xiyaam ay waxi kase la ay feni kase la bu ñuy dekki yow mal xiyaam Tiwaawan la ñuy dekki dégg naa ko man maa ko déggal sama nopp vidéo yaa ngi fi di daw yéen a ko gën a dégg am na ñoo nan bu ñuy dekki yow mal xiyaam Tuubaa la ñuy dekkee ay feni kase la du dëgg bu ñuy dekki yàlla suñu borom li mu wax ci alxuraan nee na suuf si da koy soppi a sax amatul màkka sax amatul dara existé wul beneen suuf la ñuy dekkee ñun bu ñuy dekke ñun suuf soosu xamuñu ko beneen suuf yàlla day wëlbati suuf si ngeen bëgg a weddi waxu yàlla bëgg a saxal Tiwaawan Tiwaawan dafa amati Tuubaa dafa amati ay naxee mbaay la ay fen la léegi seen histoire yooyu léegi ngeen gëmloo ko nit kilifa guy fen baaxul léegi yow boo ko loo nit ki ba nit ki gëm ko loo loo tax booy dëng yow ku xalaat ni ndax yow man yent saa bu lay wax da bàyyiloo xel yow ma xam ne la foofu yàlla day àtte ku def pepp lu baax ñu fay la ko ku def pépp lu bon ñu fay la ku def lii boo deewee yàlla dalay duma dalay bugal yàlla na yàlla musal ci mbugale ki duma. léegi nit ki pas-pas bu wér boobu muy pas-pasu àllaaxira mu xamal la ni fii du kër àdduna du kër nga bàyyi xel pas-pas boobu loolu mooy tax ngay ragal yàlla mais ku jàpp ni mbir mi ci àdduna la la yem ku dee sa bopp la neex def boo jekkoo xaalisam waaye dund rek ngay ut foo jekkoo moo leen bu kiiw da nga koy toje loola neex def doo xalaat ay yow mal xiyaam ay boo yow pour yow boo rayoon nit tey yow ay li ngay xalaat ay gendarmerie fii ngay xalaat bu la gendarmerie jàpp rek nice ndax yow gëmoo ëllëg nekkul ni gëm naa ëllëg mooy nga gëm ko yow na ko xalaatee lool sa sa ëllëgu ëllëg sa ëllëg boobu bi ñu la wax nga gëm ko mooy ëllëg bi yàlla wax ku rey nit yow mal xiyaam ci bakkan nga tay ko yàlla da lay mbugal kon kooku yow doo xool sax ay gendarmerie ki policier mais yaa ngi xool borom asamaan ak suuf yaa ngi xool ëllëg yàlla dana àtte nga gëm ko loolu tax yow looy def waxuma la dara da ngay dépassé ay alkaati ndax da ngaa gëm li yàlla wax ne lii ku ko def yàlla dalay lay bëggal loolu boo ko gëmee yow ragaloo nit ragaloo alkaati mais yàlla nga teg sa kanam mais jàngaloo leen nit ñi loolu ndax li ngeen jàngal nit ñi ni yokk bon la ay waxal ñaan gii rek nga kii ko téere bii nga ko texe ko texe benn sëriñ fan yële génne na fotoom ne dugg ci Facebook bu ma mën a fen wane vidéo am daal ne nee na sëñ diw sàngam moo ko ne koo ko gis rek texe yéefar ya gis Muhammad sallallahu alayhi wasallam gën sa nday gën sa baay yéefar ya xool Muhammad sallallahu alayhi wasallam dund ak moom dem safara yow léegi yow sa vidéo rek yow nga tas ko daal yow ko la texe fan la am. kooku sant ki ki doon def loolu xëy rek teg vidéo am ci kii bi ki ci ci si YouTube bi muy circulé sama borom Tuubaa nekk ci woon nañ waxante dëgg. nekkul woon ci caaxaan yooyu maam borom Tuubaa waxu ko maanaam bu nu dundee sëriñ si ñun nanu dundal lislaam gi sëriñ si nekkoon muy ku mel ni ñoom maam borom Tuubaa ñun bañu ñu maam borom Tuubaa bañu ñu maam alaaj yéenay noonu maam alaaji Maalik yéenay mu yoonu baay alaaji baay baay borom Tuubaa da ngeen ko war ko war a xam mu leer ndax yéen da ngeen koy dundee da ngeen koy dundee pas comme ngeen ñëw di jàngale loo xam ne ñoom nit ñi dinañ leen xemmem nit ñi dinañ ko mën a jëf ba pare dinañ leen mën a ñaanal ba pare ñu am ci tuyaaba mais yéen na ngeen fexe rek ba tuumaal mag ñi loo xam ne ñoom bu doon ñoom ñoo ko woote bu doon ñoom ñoo woote lool bu deewee ay yat la ñuy fekk foofu bu dee ñoom ñoo taxaw fii naan yàlla lañ ñoom ñoo woote naan ñoo ñoo ñooy ramb jaam ñi wallaahi mag ñi bu dee ñoo ko woote woote nañ ci erreur woote wuñ ci dëgg. ndax ndosu mbindee fi yoruñu ko yoruñu jaami moomuñu moom ñu safara ay jaamu yàlla kottu lañ mag ñi danoo mënta waane mën a liggéey liggéey ba ba liggéey li Aboubacar Siddiq liggéeyal lislaam mënatul nekk ñooñu raw nañ yàlla moo ko wax paaman ñooñu raw nañ wallahi raw nañ ah, lu Aboubacar Siddiq amut waxuma la Aboubacar Siddiq nga tëb foofu yëpp jël lu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amul nga bokk ko jox Serigne Touba wala nga jok ko El Hadj wala nga jox ko Baye Niass yéen yéen a yàq dëkk bi yéen a yàq société bi yéen a tax nit ñi maanaam nekkuñ ci ak ngëm damay ñëw rek di leen wax histoire pour di leen wax am na histoire yoo xam bu ngeen ñu ko doon wax tey ci diggante Mamor Anta Sali dama gis dama dégg histoire bu daw yaram histoire bu jara nettali ci Mamor Anta Sali mi nga xam ne moom mooy bàyyi xaadimu rasul wax leen ci soxna jaara busa mi nga xamante ni si royuwaay la muy yaayu Serigne Touba yii lañ soxla mais soxlawul seen waxe dof yi dañuy wax lu nit mënta dégg am na histoire yoo xam ñëpp ko mën a jariñoo ci àdduna day defar société bu ngeen ko doon wax nit ñi dinañ xemmem mel ni soxna jaara nit ñi dinañ xemmem mel ni Mamor Anta Sall xool leen ñaar way dencante ci wàllu wujj exemple bi ñuy joxe ci wujju soxna jaara ñu ne soxna si wujjoom dafa doon sëy ak Mamor Anta Sali amuñu doom nga xool ni mu bëggee jëkkëram ak ni mu fonkee borom këram xool leen histoire ñun lii leen soxla yëfi nit waxi nit wax yoo xam ni day defar société wax yoo xam ni nit ñi dañ koy topp mag ñi ña ñoo leen di bañ mag bu baax kenn bañu mag bu bon lanu bañ ñun magum caay-caay lan bañ seen caay-caay gi moo fi jóge wallahi seen cere ji dama di leen paanub suuf la ñuy jël xëpp ko ci xaw fu muy mujj nag waaye paanub suuf moom danañ ko xëpp seen cere ji léegi Cheikh Amadou Bamba muy baayam joojee di Mamor Anta Sali ak euh, Soxna Jaara Mamor Anta Sali lan moo ko booleeg Soxna Jaara ñu ne Mamor Anta Sali dafa yoroon benn soxna soxna soos mu yoroon Euh, ñoom ñaar mënuñu am doom léegi soxna si xoolal ni mu bëggee borom këram sunu mag ñooñu ay royuwaay lañ kenn bañu leen yaay ju baax kenn bañu ko maam ju baax kenn bañu ko mag mu baax ñëpp lay bàyyoo baay ju baax baayu ñëpp nga ndey ju baax yu ñëpp nga mais ndey ju bon moom kenn soxlawu ko nga xool léegi nan la demee mooy lan mooy kii dem na ba kii xool leen yéen jigéen ñi loolu boo ko waxee jigéen ñi nga xam ne bëgg nañ soxna jaara xoolal xoolal ni ñuy comporté bu boobaa kon dinañ wàññi kon ak fiiraange ak lu nu bëgg-bëgg seen intérêt personnel wala ñu bëgg ki mais dinan bëgg seen borom kër dinañ bëggal nit ñi jàmm dinañ yaatal mu ne comme te kat mënuñoo am doom kat soxna jaara mi sama rakk nekk ku baax léegi kii nii moom ngay takk moom moo ko soxna jaara wujjëm moom moo moom moo ko moom wujjëm moom moo may borom këram Mamor Anta Sali soxna allahu akbar xool leen jikko yu rafet yooyu loolu jigéen ñi fiir dégg ko ñu bëgg na jaara ñu bëgg lu baax bëgg lu kii dañ koy roy ndax loolu yombute yombute léegi ñun ay histoire yi dañuy soxla ngeen ñuy nettali histoire yoo xam ni maanaam nit ñi dañ ciy mën a jël roy waay mais léegi kii julli na ca géej ga nañ waxante dëgg sama waaj nit mënu ko bu fekkee même sëñ bi bu jullee ci géej ñun mënuñu julli ci géej te ñu xam ko wax dëgg yàlla amulul njariñ lii rek ngeen ñuy nettali ci c'est pas comme ay acte xool leen tey histoire tey ñu jëloon la histoire jàmbaar ku mag a mag a mag man ay affaire mag dama koy déglu te gone yi ma leen di sa déglu di si yéen ngeen di déglu yooyu. sunu mag ñi ay ñu amoon qualité la ay soxna jaaraak ñi ngeen di dégg Serigne Touba ñu amoon ay qualité la mais nit ñu duñ toog di wax seeni qualité. xaalima jaxate kala ku la ku la wax histoire am dama ni la attekatu tubaab yi science ñi gën a kii laa la wax mënuñu ko ci at. mais lan moo tax doo leen di indil ay histoire yooyu histoire nit luy indi xel léegi bi ngeen ñu indilee sëñ bi tey julli na ci géej wala sëriñ bële julli na ci kii wala sëriñ bee naaw na léegi problème bi mooy benn bu dee dañ ko delloo ci balance sariya ñu delloo ko ci lislaam lislaam amul fenn fu mu jàngalee ne nit ki boo demee ba julli jot tëbal ci géej ga ca ndox ba nga julli santaane wu ko fenn du fekk du jàngale lislaam daf leen ne boo julli comme julli ni boo demee nga nekk ci waruwaay da ngay julli julli toog wax la na nga fay julli jàngal la ko mais nga bàyyi jàngalem lislaam boo bëggee ñu indi loo xam ne du yëfi nit même bu ko xamee ñun du dara léegi loo ci jublu pour yàllaal sëñ bi mais xoolal soxna jaaro comme exemple bi ma joxe si ñoom tey jigéen bu roy kooku jëf ji mu jëf mu doon lu neex yàlla mu doon lu rafet mu doon lu booreb société xoolal loolu noonu kooku jëf moom da ciy am tuyaaba moom ñoo ñu dañoo soxlaay tuyaaba daf ciy am tuyaaba loolu ñu ko roy mais pas comme seen nettali yi ngeen nettali taa seen nettali wallahi da ñoo yab jàngal leen lu am solo jàngal leen ay éducation comme mag ñi seen jikko yu baax yi liñ daan def sëñ Tuubaa fekkoon na kii sonn mu dimbali ko soxna jaara daawul dox di di waxtaane daawul kii di ñeetaane xaw ma lan ak lan ngeen jox ñu yu mel noonu ngeen ñuy jox ay histoire yu mel noonu léegi nga xam ne jigéen ñi di ko mën a roy yooyu mooy li am solo mais comme pas ngeen ñuy nettali loo xam ne même ñun buñ ko déggee dañ koo munut tele yi amul loo leen ñuy wax lu dul seen wax yi nga xam ne amulul njaañ te du dëgg barke alxuraan du dëgg ki toogoon ci télé ba di wax ci beneen yoon la bokk moom tamit mu ne maanaam dafa am mag moo xam ne ba muy dem màkka ñaari paa la dox koo yab yaa mën a fen seex naa seex Sadd ba muy dem màkka ñaari paa mais ñaari paa moom moom moom tànk nan la tolloon laa lay laaj ca Kaaba la woon wala lan la moom ban façon doomu aadama la laa lay laaj ñaari paa nan nga ko mën a doxee dem màkka koo yab après même bu deen def na ñaari pa ñun munuñu ko ban njariñ la am ban sens la am déedéet wax nit ñi di ñu jox ay jikko ay sëñ bi ba mu defee lee sëñ bi ñoom am nañ ay jikko yu rafet suñu sëriñ si léegi loolu ngeen di nettali pour yàllaal nit ñi pour li jënti seen xaalis ku dàq fen sa morom nga ne kii léegi après moo ni boobu ngeen jël dugal seen poos nekk ci turu sëñ Bamba ngeen ko amee wala tur Cheikh na Sadou wala turu keneen fekk ay fenni kase mag ña fekkewun yëgun waxun gone yi utiliser leen seen xel ñu ngi ci 2022 dee leen déglu ubbi seen xel yi di déglu wax ju leen amal njariñ wax ju la amul njariñ bul ko déglu te yen bu fekkee yooyu sax ngeen teg tamit ay kéemaan ñun munuñu ko mais sunu mag ñi li ngeen wax wallahi man ma <laughs> allahu akbar daymon daymon moo gën a aay sunu mak yëpp yéen seen kiraama yi ngeen wax yëpp dara leen ci déggut waaye daymon li mu def sunu mag ñi kenn def ko ci Sénégal cat ba cat sama waay sama waay na subhanallah gis ngeen da ngeen di bañ loo nit ñi mag ñi ci ay fen da ko teg ba tax na gone yi déedéet am na ñoom sax bëgguñu sax ngeen tuddal ñaay mag gis ngeen Diamond li mu def sunu mag ñi senegal cat ba cat kenn def ko gone yi dugg leen ci kii bi dugg leen ci YouTube bi ngeen tàppe Diamond Diamond day naaw day naaw ba ci kaw ba ci kaw kii bi te ay discothèque lay nekk de day naaw ba ci kaw air bi mu kale suñ benn mag defu ko Diamond xam naa ni Sénégal ku mënoon li Diamond mën tey ngeen dee dina leen noggatu ba ngeen bëgg de dee Diamond day naaw ba ci kaw air bi laa mu kale suñ benn paa def ko fi day dox ci géej gi dox Diamond gis <laughs> allahu akbar gis ngeen comme ni yi nii lay ci miir xool leen comme nii tak tak tak tak tak gis nga kaña ni muy doxee ci miir tak tak tak tak nii day dox ci miir yi diamond day jël benn jën di ko di ko di ko def nii mu nekk jën yu bëri kon yooyu ngeen ñi nettali amul solo daal ngeen ñëw ngeen di jàngal nit ñi diine di jàngal nit ñi li nga xam ne sunu mag ñi ñoom ci lan nekkoon sunu mag ñi ñu baax lan kenn contre sunu mag ñi yéen lan contre léegi xeeti fen yooyu yëpp waa kër Cheikh naa Cheikh Saad Bou yéen dégg ngeen ki nekk ca télé ba publiquement muy dugg ci seen nopp taalibe yi ñu jaarale ko ci turu maam Cheikh naa Cheikh Saad Bou mooy koo xam dafa dox ñaari pa ñaari pa egg màkk mais kii ku mu yab lu tax koobo soo leen seen taalibe bi naka waxal dëgg te bàyyi fen waxal dëgg tey waxal nit ñu lu am njariñ li ngay wax nii ci sama turu Cheikh naa Cheikh Saad Bou tooñ nga kon responsable si yéen la loolu ngeen bëgg pour léegi moom bu doxee ñaari pas pour léegi yéen jombalaate yéen seen famille fi gën daal après ñu leen jox at yi ngeen lekk daal toog toog toog toog muy dox ñun ñii ñun ñoo amal njariñ mag ñi ñun ñii ñun ñooy défendre mag ñi ñun ñooy défendre Cheikh Amadou Bamba ñun ñoo défendre El Hadj Malick ñun ñooy défendre mag boo leen fi mënta tudd ci mag ñi baax ñi. léegi ngeen di def nii di doxalu dëkk ndax li ma leen sànq ci yowmal xiyaam yonent bi salaa salaam wax na nee na man kaana yuminu billahi wal yawmil axir gis nga ku gëm yàlla gëm bis penc mooy bis penc ba yàlla wax pasen seen bis penc Sénégal gii pas seen bis penc bi seen bis penc seen bis penc la yéen seen yowmal xiyaam la yéen boo leen créé yéen ko fi mais bu bu yàlla ba moom ak bii bokk te nag yowmal xiyaam gi yàlla moom lu mu fa teg yow ma yow ma yu bëri lool ci alquran ñu tek ko fa leen di jëw di indi seen yowmal xiyaam yi di ko fa teg foo leen yéen àdduna gii rek ngeen xam ne pacoté la dara ñi ngi ci yawmal xiyaam bu fekkee ay mbugal moom ñi ngi ci ay mbugal ñi ngi ay jiit yu ñuy noggat <laughs> ñoom bu ñuy bu ñuy làppali yéeneetee suñuy loxo bi doxut ndox amu fi dara amu fi nit ñi mar nañ xiif nañ mais yéen kaw déegu kawsar foo leen ko yore yéen maruk àdduna gii mënoo lijjanti leen àdduna ba pare wala ñu ay preuve bu ngeen ñu wane ay preuve sax du boobaa sax à yéen na dëkk bi dox yéen koy àjjana àjjana gee moom moo gën a kii moo gën ki kii léegi ñun àdduna gi ñun safara lañ fiy dund léegi fayal leen ñu safara si ba pare balaa ngeen ñu fayal safara fële. koo leen yàpp gone yi nekk leen nit nekk leen nit wallaahi dañ leen di foowe dañ leen di foowe nekk leen ay nit yu diine. day caaxaan la maam borom Touba buñ la nettalee ay dundum nekkut woon ci caaxaan yi seen tappale yi ñii dañuy dundee maam borom Touba ñii dañuy dundee maam El Hadj Malick ñii dañuy dundee sunu maam yi yam rek danoo yeew fii nekk ay nit man gis nga sama maam ni mu nekkee maam noonu la maamu ñëpp nekkee maam sama maam xaw mu ko sax man sama maam santiru ma ko sax sama maam boo xam ne su ma soo ma xëcceelee samay juróomi maam yàlla xam ne sama juróomi benn lu maam ba ku ci kii mais su ma mënoon business exemple nga mën a business si sa turu maam mën a lijjanti ko yow da ngay lijjanti ko loolu rek la ay dóor rek la ay dóor la ndax sa maam sa sa juróom maam yow ku ko saaga lu la ci saf ku sa maam boo xamut fekkante woo leen ñu naan la sa maam am na ñoom seen jur am na ñoom seen maam sax xamuñu seen tur far fii ñu baree bëri koo fi laaj sa koo fi indi ñetti maamam wala ñeenti maamam ñeenteelu maamam xamu benn la rek. juddu rek ñu ne la sa baay sa maam moo fi nekk rek affair yooy yow nga ñëw di business sa maam mais xamoo sa maam bokkoo leen jikko jamonoonte woo leen sa maam nekkoon na ku baax ñi am na ñoom fii seen maam ay jàmbaari lislam lañ woon mais tekkiwuñ dara bari na ci sant yëpp noonu la vaale ni mu vaale ci Diop noonu la ci wee ci Mbàkke ak si ak ñas bàyyi leen seen caaxaan yi taragal yàlla borom bi subhanahu wa taala seen àjjana yi ngeen di gaate ngeen baay ko àjjana gee dara ngeen fa amul yàlla nañu yàlla teg siraatal mustaqim ngay wax nit ñi di leen wax ak yiw ñu lay saaga di la xas di la wax lu nekk yàlla xam na ni sëriñ bi li ma leen di wax nii pour seen njariñ la mais ab waxkat moom waxal rek ngir yàlla ndax dëgg moo moo neexut dëgg moo yombut booy wax nag di yërëm nit ki kooku continuer ko yërëm rek di yërëm la ba pare nga bay saaga di ma xas lu neex nga wax yal na la yàlla gind barke alquran yal na la yàlla teg siraatal mustaqim yal na la yàlla wan dëgg ba nga xam ko mu teg la ci saxal la ci rey la ci dekkal la ci man la caaxaan ak tappale ak i naxe ba nga xam ko nga moytu ko defal ko mbooloo mu julli jullit yàlla nañ gindi ko mais sunu tarika yi dañoo bëri caaxaan de sunu paa yi yàq Sénégal golo yàq ko ci àll moom barke yàlla. ne nag bu ko fi kenn waxee dëgg yàlla te it yow li ngay kii nii bu dee yow yàlla rek moo la bu fekkee yàlla rek moo la yitteel yitteel yow ki taxaw naan sëriñ bi moo bind yàlla ak waxi ñàkk teggin ay yàlla borom bi subhaanahu wa taala naan màggat la sëriñ bi maanaam <laughs> subhaanallah la hawla wala la illa billah yoo xam ne di ci jaar sa wuur mën na rëcc iman su leen neex yàq yàlla ko yonentam tax wallaahi lii da ngay dëggal sama waay ba rek Sénégal dama di laaj lu tax ku ne yàlla nee na ñu jël jaas ne dañuy dagg sa bopp mbokk Sénégal dama leen di laaj lu tax ku ne yàlla kenn la ñu jël jaasi ne dañuy dagg sa bopp mbokki Sénégal dama leen di laaj ndax lii diine la jaasib tariqa bi balaa muy génn rek danga naan yàlla ne mbaa yonent ni jaasib tariqa bi balaa mi rek danga naan yàlla ne mbaa yonent ni jaasib tariqa bi balaa mi génn rek dangay wax dara ci Sëriñ Tuuba mbokki Sénégal dama leen di laaj ndax lii diine la mbokki Sénégal dama leen di laaj lu tax ku ne yàlla nee ñu jël jaasi ne dañuy dagg sa bopp waa Sénégal dama leen di laaj lu tax ku ne yàlla kenn la ñu jël jaasi ne dañuy dagg sa bopp mbokk Sénégal dama leen di laaj lu tax ku ne bamba yàlla la ñu ne la eskey jaasib tariqa mi génn rek danga naan yàlla ne mbaa yonent ni jaasib tariqa bi balaa mi génn rek danga naan yàlla ne mbaa yonent ni li di wax ci sëriñ Tuuba ëpp na waaja nee na sëriñ Tuuba mo bind yàlla li ngeen di wax ci Cheikh Ahmadou Bamba ëpp na waaja nee na Bamba mooy falli folli mooy lii ku fi wax lii lépp wallahi taxawal nga ne yow yàlla nga yàlla ki la weddi ne la kii du yàlla de kii sëñ du yàlla subhanallah yàlla kenn la allahu ahad ñu ne la danga ngaa sëriñ bi danga ngay diingat yat wa gaa yi yat jaasub tariixa ba jóg ci yàlla kenn la ndax <laughs> loolooy yàlla kenn la sëriñ ba toog ca fëtëy ba sëriñ ba toogoon ca ba ñu ko yàlla gaa yi naan man ma weddi ka ne leen déedéet moom du yàlla dal ci sama kaw subhanallah bi mooy <laughs> réalité lu am lan la yéen sëriñ si mbàkke mbàkke yi si si ñas ñas yi ñuy toog di woote woo lislaam bu buwoo lislaam ñoom seen bopp ñoom ñooy woote woo yàlla ñoom seen bopp ñooy woote woo yàlla boo ko fi ñu toll nii yow boo ko weddee yow ñu jaasi tarixa bi dal sa kaw ñu ne dañ lay dammate dañ lay dóor dañ lay kii sëriñ si xam loolu ba pare di ko seetaan nekk ci ay escroc kon lan lañ defar ci diine gi yàq dara ndax yàlla ku fi toog di wootoo yàlla waxoo dëgg Sénégal dama leen di laaj lu tax sëriñ ba toogoon di wax ni moom yàlla la gaaya naan eskey man Medine Diop ma weddi ka ne loon sëriñ ba du yàlla jaasi tariixa bi dal sama kaw li mooy li am xaqan xaqiqatan mooy ci dëkk bi li am sëriñ si man ko seetaan dara méttiwu leen ci bokkaale yàlla gi dara méttiwu leen ci caaxaan yi dara méttiwu leen ci li gën a pricolose Sénégal li gën a garaaw Sénégal mooy kenn nalal borom bi subhanahu wa taala allahu ahad qul wallahu ahad allahu samad mooy li gën a dangereux Sénégal pour aaya alquran boobu nga firi ko nga pratiqué nga gëm ko ndax yàlla lam yalid walam yulat walam yakul lahu kufan ahad jurut kenn te kenn juru ko kooka toog ca ba ñu naan ko yow yàlla nga mbàkke yow yàlla nga kooku dañ koo jur dafa am ndey dafa am baay yàlla amul ndey amul baay moom muy woote woo yàlla nga ne eh déedéet kii du yàlla de kii du yàlla yàlla kenn la di ngeen a juum de. taalibe yi jóg ne la ah Serigne Diw sàngam mi kat doomu Serigne Diw sàngam mi nga xam ni ndayam moo gën sa nday baayam moo gën sa baay bu tooge fii tey ne yàlla la danga naan est-ce que moom mi taxaw ne yàlla ngeen xam ni yéen ngeen war a toog weddi ko ne doo yàlla lii la Firawna woote woon. léegi yow mi ko weddi léegi yow gars yi nee nañ est-ce que est que tey sëñ bi dëgg la de oh yàlla la de yow mi toog weddi ko nag yow jaasi tariqa bi mooy dal sa kaw. moo tax mbokk senegal yi sama question bi tontu leen ma ci waay lu tax lu tax sëriñ si ay escroc lañ ci dañ ko seetaan dañ ko seetaan ne waroo ci wax lakkum diinikum wala diin mais kon bul ko tu tuddee ci diine lislaam bu dee tey. da jël muus wala xaj waxuma la sëriñ de nit wala nga jël muus wala xaj nga ne xaj bi sa yàlla la mais dugaloo ko ci lislaam loolu yow la concerné mais bu bëggee dugg ci diine lislaam ñu ne la du lislaam du diine lislaam benn yàlla kese la am amul ñaari yàlla muy allahu subhanahu wa taala bu la laajee ana yàlla yonent bi salaa salaam ba mu la laajee soxna si ne ko ana yàlla mu ne ko mi ci kaw asamaan si yàlla boobu lañ xam mais yàlla bu nekke ci kaw suuf si ñun xamuñu ko nekk ci kaw suuf si toog ci ay siis di lekk yori soxna yori doom lam yalit walam yulat walam yakul lahu ko ahad raxasaat leen seen cerveau yi. lii lu lu yàq lu ci diine gi la bokkaale gi dafa ëpp daf ñoo um ndax yàlla ñi ngeen def yàlla ñooñu dara leen mën yàlla seetaan ak ñooñu dara dara tus yoo tax nañu ragal yàlla borom bi subhaana wa taala live ko bëggoon a continuer am ci yeneen détails yu ma dugg laaj bu diisee nii <laughs> waaw mel ni bokk taalibe yi dañ koy desee kii daal ndeysaan ndeysaan ndeysaan kon xam naa dinaa duggaat incha allah def benn live boo xam ni suma ma amee bi boo xam ni ma jëmale ko ci wàllum sunu politiciens yi incha allahu rabbi mbokk sénégalais yi ñu ngi leen di ñaanal jàmm te di sàkku ngeen ñaanal jàmm yàlla ñu borom bi subhanahu wa taala defal jàmm mbokk sénégalais yi ndeysaan wallahi dañ leen bëgg yéen ndaw ñi yërëm leen yii ni leen jàmm gis ñu leen ndax di leen fawee ñu leen koy wax di leen ko wax te yàlla rek tax ñu ci ñu ci ngërëmal borom bi subhaanahu wa taala bu leen ñu mere bu leen ñu kii ñun dañ leen bëgg rek pour loolu ngeen xam ko quoi mais jarut ngeeni ngeeni kii <laughs> saa ne na ko fi dara sama waay <laughs> moo ne dama laa bi li ko waral mooy ñu fi waxul dara ñoo laal doon wax nii de loolu rek laa fi doon leeral de pour ñu fi waxul dara muy léegi sama wax ji daal mooy wa fi dara yàlla kenn la waxoo fi dara wax loo xam ne nga teg sa bët kàcc yi nekk ci dikk bi ay ñaari paa ban njariñ amal sama waa ji El Hadj Seye balaa maa tëj laa fi ma tëjee ko ci yow El Hadj Seye ban amal yow ci comme lay nettali kii julli na géej ay kii waxi <laughs> waxi dof rek ngay wax nee na ma soxla ma sa xam-xam yow boo soxla sama jot nga ku soxla woo sama xam doo fiy def di ba kaay ma waxaat la kon ci leneen pour waar la pour dimbali la waykat ba dafa ne mooy lu bari jot ngir ku bari jot kenn la dul jot te ñëpp lay jot ku bari ak jot foo ko gis ak na nga li tebbat seytaane saakat nang ko dem xel bul ko dem xel ngir ko dem mu musaani la yat ku bari am xel day dawe am xel nit du dem xel lii laa la wax kat dégg nga jëlal ma may la dégg jot baaxut lii ak jot la ndax di déglu loo xam ne awalu la benn njariñ di déglu loo xam mënoo fa am njariñ ak jot la bu fekkente ne yow nga dem déglu tey ñu nettali la sëñ ba dafa naaw moo la amal njariñ bu fekkee yow mën ngaa naaw nga ànd ak ngay naaw bu fekkente ne sëriñ ba dox ñaari pa egg màkk amal na la njariñ mën nga ci jëlee benn xam-xam ci àdduna ak àllaaxira demal nga déglu ci loolu bu fekkente ni sëriñ bi mooy toog di la jàngal yow ba xiyaam maama moo lay tee ila duxuli janna <laughs> <laughs> allahu akbar wala ñëw toog sëriñ bo toog naan la maamam moo puus géej gi boobu moom moo may rey maamam moo puus géej gi yow da ngay def ay ay demande sa sëriñ nga ne ko léegi sa sëriñ boobu nga ne ko mu dimbili la ki nga xamante ni si moo puus géej gi maamam léegi comme te sët mi ngi fi maamam xam naa jamono yi muy puus géej gi dëkk bi taaw inondation bi léegi nga wax ko mu ngaccal leen ndox bi moom na ngacci ndox bi rek bu ko ngàccee ngeen topp ci na naka ngàccee rek def ay baat nag ndox bi ngàccee ko du jaar ay moto du jaar dara parce que yàlla da ci sa waay wayoo utiliser leen seen xel yi te nekk nit utiliser leen seen xel yi ay fen dafa defarut réew watawaasa bi xaq watawaasa bi sabri dëkk bi pour yéen <laughs> pour yéen li fi amoon moo fi continuer ba tey ay nit toog fii di fen kenn du la weddi barke alxuraan dañ koy weddi ku fi fen ñu weddi ko mu rusul moom toog fii moom di fen ñun moom amut problème moom ñu weddi rek weddi diingat waaw wallaahi weddi ngir yàlla diingat ngir yàlla incha allah ba pare nag demee gi yàlla ànd ak yàlla borom bi subhaanahu wa taala bañ a ànd ak comme yéen ngeen ànd ndax yéen <laughs> dara ngeen jàpput jàppoo leen ci tuus xawaa xawaa ngeen jàpp ci bakkan ndax problème <laughs> allahu akbar xam nga ñi ànd ak yàlla yàlla nañ àndal yàlla moom day dund te du dee mais yéen maanaam ñi ngeen àndal ay ku dee wala koo xam ne yëgut fa nga nekk wala koo xam ne ku la tëj ci kasa bi moom yëgu ko wala koo xam ne yow boo lekkee boo naanu du wërsëg du lenn lum la jox mais man ki ma àndal mooy ki nga xam ne moom bu ko neexoon yow léegi léegi nga dee yow yow moom laa se barke yàlla bu ko neexoon léegi nga dee bu ko neexoon léegi sa sëriñ dee te kooku day tere day tere le sa sëriñ di def naan taw fii naan yàlla la fir xaal na ba mu ko defee daf ko alak daf ko alak yàlla kenn la yàlla bokkut ak seen yàlla bii ngeen di wax seen yàlla boom yàlla bi day feebar léeg-léeg yaram bi du neex. moom yàlla bi yàlla <laughs> mi yor wér moom ci boppam bu bëggee wér hopital lay dem mu faju seen yàlla bi ban yàlla la hôpital seen yàlla boobu bu bëggee faju day dem hôpital mu faju seen yàlla boobu bu bëggee faju ci ñi mu bind moom moom leen ñoo ñoo koy faj buñ ko faju du wér seen yàlla bi bu dee ñoo am problème de ku ñuy tawalati kon adduna bi daal day bloqué léegi yam fii seen yàlla bi léeg-léeg tànk yi crampe te moo bind karité kat moo bind karité moo bind garab léegi karité boobu mu ne moom la bind moom lay jënd di ko fajoo seen yàlla bi te amu ci xam-xam nag ci wàllu faju nag nekkul moom mooy ñëw rek xam boppam faju bu bopp bi di bu bëñ bi di metti day dem ca ñay defar bëñ seen yàlla bi ci kooku lay dem léegi après pour kooku xoolal ko bëñ mais sa sa yàlla bi xam-xamam eggut ci bëñ bi bëñ bi nga xam ne moo sax ci moom buy metti lan moo koy metti seen yàlla bi wàllug yaramam bu amee feebar ci biir yaramam moom xamut feebar bi seen yàlla bi moom xamut feebar bi nekk ci yaram day dem ci médecin bi mu bind te moom nee na moo bind feebar seen yàlla bii lay fen du yàlla moom médecin bi lay dem bu demee ci médecin médecin moo koy xoolal yaramam bu dee dafa jabet ñu ne ko yow jabet bu dee dafa tuberculose ñu ne ko sëñ bi da ngaa tuberculose seen yàlla bi bii ban yàlla la wallaay da ngeen àndule seen xel rek seen yàlla bi moom moo moom moo seq moom moo bind nee na moo bind wërsëg moo joxe wërsëg moom ci boppam ndongo yi buñ ko joxul xaalis du dund adiya gi adiya gi wallahi xel woo leen adiya gi lay wax day laaj adiya pour ndongo yu joxe xaalis seen yàlla ci boppam yàlla mooy wërsëgal mooy arrazaq kon ana baatu arrazaq kon da ngaa weddi arrazaq yàlla mooy kiy xéewalaate mooy kiy yor wërsëg mais sa sëñ bi pour ma am wërsëg wala mu bëgg def dara danaan ndongo yi ne ngeen cotiser ngeen indi addiya gi comme te kay yàlla ga kay yéen moom waru soxla dara moom comme te kay mooy taw di def lépp sax mom lan moo muy dem di jënd ay pom sax yooyu moom kay comme te mooy kii kay da te yàlla seen yàlla gi day lekk pom dafa bëgg banaana dafa bëgg ginaar na jékki-jékki ginaar mu nekk ginaar ndax yàlla sunu borom subhanahu wa taala yàlla bi ñu présenté ne mooy yàlla te mooy yàlla. moom bu bëggee dara da ko naan nekkal rek mu nekk jëru sax sëñ ba sax di sonal soxnaam yi ñuy nekk fii di sonn di togg ak wala jël ay mbiddaat ak yooyu bu bëggee ginaar na ne ginaar ginaar gi ñëw pom moom bu bëggee dara danaa nekkel rek kun fayakun mu nekk koo koy allahu azza wa jalla mais yàlla boo xam ne balaa muy am 4-4 day laaj taalibe yi 4-4 taalibe dajale liggéey bay ba a dee bu nu dajalee liggéey ba pare ñu jox yàlla ji seen yàlla jooju ñu jox ko mu jënd ci 4-4 mais yàlla sunu borom subhaana wa taala ki defar 4-4 yàlla moo ko jox xel ba yàlla bu bëggee 4-4 danaan nekkal 4-4 bu bëggee dara ci alquranu karim wala da ngeen bëgg a weddi alquranu karim nag léegi ah waxu yàlla gi léegi ngeen bëgg a weddi yàlla bu bëggee dara da ko naan nekkal mu nekk kii mooy azza wa jalla mais nga ne kii yàlla la lu mu bëgg mu nekk nekk. ak politicien mën na ñëw ci moom léeg-léeg sax mu fen mu ne ko yow yaay falu du falu ab mbërum làmb mën na ñëw ci moom mooy loolu mu bëgg ki naan ko ñaanal ma yàlla gi day ñaan mais yàlla boobu kan lay ñaan seen yàlla bi yàlla bi laay dem pour yàlla ñaanal ñaanal ma yàlla boobu kan lay ñaan beneen yàlla ñaata yàlla moo am benn yàlla kase am loolu ku ko gëm yaa ngi gëm seytaan ku gëm ne ñaari yàlla bokk ci pas-pasu l'islam ci diine Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da ngay gëm ne benn yàlla rek am. mais yàlla boo xam ne bu soxlaa day ñaan yàlla nga dem ci yàlla bi ne ko yàlla ñaanal ma yàlla kay da nga ko naan yàlla may ma seen wax yi maanaam mu gëmuwut yéen seen bopp ngeen toog ànd ak seen xel di utiliser seen maanaam di xam ne seen yàlla yi duñ yàlla yi ñaari salaamaaleykum ngeen jël ab xërëm sax tek ko sax moo tax ne ndax bu dee xërëm la xërëm bi du la sonal quoi di la di la sas ay di la laaj ay adiya ne yàlla ji moom yéen a ciy diggante barke alxuraan da leen leen bayloo ba ngeen bëggeen bëggeen subhanallah takk leen saret ba caayee teeñ amuñu benn njariñ seen yàlla yi amulul njariñ seen bopp amulul njariñ société bi amul amalul njariñ kenn seen bopp rek seen bopp rek moo tax yàlla yi ñoo bëri yàlla yi bëri day indi problème ci àdduna bi loolu la seen yàlla yi moo bari Sénégal diw yàlla la kële yàlla la kële yàlla la yàlla yoo xam ni <laughs> subhaanallah dëkk ya yàlla juddoo dëkk yooyu bokk na ci dëkk yi gën a métti ci réew mi yàlla dañ leen teg natt yoo xam ne seen dëkk yooyu kenn mënu ko jagal parce que yàlla kenn mënu ko jagal xiif nga marga du nay yàlla wallahi du nay yàlla moo tax ku toog weddi ko loolu daf lay dimbali ku toog di la wax nii li ma lay wax daf la arrangé pour nga mën a utiliser sa xel yàlla boobu yàlla mooy diglaate yàlla mooy ki nga xam ne moom day digal borom sañ-sañ la moom azza wa jalla moo naan malaaka bi duuraateel mooy naan malaaka bi rayaateel mais yéen Macky Sall gendarmerie Macky Sall yi dong dong seen yàlla ba mu ngeen naan yàlla la bu jàppoon taalibeem moom amul droit joxe ndigal ne gendarmerie oh bàyyi leen kii sama taalibe sàngam bi ngeen jàpp day dem ci président Macky Sall ne ko Macky dama lay sàkk wàllu nga rus ma ci nga bàyyi sama taalibe Macky bu nee waaw ñu bàyyi ko makki bu nee déet sa yàlla boobu dafa am président seen yàlla bi jaamu tubaab la seen yàlla yi ngeen wax yi ñoo leen yàq seen yàlla bi tubaab moo ko not yàlla bu ñuy not subhanallah kooku matul yàlla waay seen yàlla bi jaamu tubaab la seen yàlla bi li leen wan dëggantaan ni da ngeen di fen seen sëriñ si na yàlla ak ñiy toog di woto yàlla dañuy fen lii rek war na leen ko wan ndax yéen xanaa yàlla moom yàlla kay moom buggul góor jigéen yàlla bugg ko seen dëkk bi <laughs> am ñoo xam ñoo fi nekk muy ñoom Macky Sall ak ñoom ñeneen ak ñeneen ñu daganal góor jigéen ci dëkk bii Moustapha Niass dégg ngeen ko démb ana yàlla ana yàlla kon yàlla kon moo daganal góor jigéen daal yéen seen yàlla senegal daal dafa daganal góor jigéen mais yàlla kay bu de kay kii nga kay yow yow alagal ñoo ñu dee lan leen alak seen yàlla gi du dëgg ay fen la c'est que dëgg moo neexut mais wallaahi dañuy fen duñu yàlla dañuy fen ndax yàlla kat fi ñu ni lan moo tax ñun ñuy sonn kon yàlla mën a nekk ci seen dëkk bii Sénégal yàlla ji ci boppam di seetaan kon daal yàlla daal moo daganal góor jigéen daal di seetaan fi mu toll nii góor jigéen dagan senegal gone yi di jóg lu nekk di am yàlla kay borom kun fayakun la. ndax da nga ko naan yaa rabbi ay yàlla dëkk bi taana de mbënd bi laa bëgg kii kay mu mu yóbbul la mbënd bi yàlla xiif nañ de mu tawal la naajal la mais yàlla koo xam ne sa waaye dëkk bi day tar bay ba a dee yàlla ji mënuñ ci dërëm léeg-léeg ñu jàpp taalibe ba ca kaso <laughs> mën a fen rek léeg-léeg ñu jàpp taalibe bi ci kaso kaso àdduna gi saa waay yóbbu ko ci 100 mètres yàlla bi du ko fu mën a génn ci 100 ba pare mën la dig yàlla yéen est ce que xelu ngeen buñ la fa dugalee dama ni la Macky Sall bu fekkente ni kiiwu la ngeen dem ci siis ba attekat ba mu jaar yoon wala mu rus leen bàyyi ko loolu moom yàlla ji mënu ko fa génne yàlla amul ndogal fii yàlla azza wa jalla nag yàlla bi nga xam ne mooy yàlla wallahi bu bëggee lijjanti dara ku mu bëgg nga génn ci biir da nga ciy génn mën day wëlbati sa xel nga génne kii mu toroxal la yàlla bi nga xam ne mooy yàlla lu mu bëgg mooy nekk mais seen yàlla yi bëgg wér mënuñu am wér léeg-léeg sax yàlla gi sax naan la ngeen ñaanal ñu rek ñu te wér yow kay doo yàlla ndax yàlla mooy ki am mooy dundalaate yow xam nga ni da nga fiy jógee yow yàlla bi toog xam nga ni yow da nga fiy jógee mais yàlla bi fiy jógee arrangé wu leen yàlla bu demee léegi après loo leen def dañ torox ki nga jàppee yow sa yàlla boobu yàlla boobu bu demee ndax yàlla bi moo la ñaan ñaanal ma guddi fi te wér ma am gudd fan ak wiir yàlla boobu moo lay ñaanlu loolu ki nga ne moom yàlla la léegi yow yàlla boobu léegi yow comme te moo la yor léegi bu deewee yow nooy def bu deewee nooy def yàlla boobu doyut yàlla ndax bu deewee da ngay perte moo tax Ibrahima alayhi salaatu wasalaam da doon jàngale yu mel nii mooy seen bokkaale gu ëpp gi ngeen nekk nii Ibrahim daf ko doon wax. da doon wax naan moom Ibrahim ba nit ñi di jaamu jant muy joxe exemple mu ne leen weer mooy sama yàlla pour yeete xel yi pour ubbi xel yi foofu la ñuy waaye ak sama gaay yi pour ubbi xel yi léegi après gars yi ba ñuy jaamu weer mu ne leen waa yéen seen yàlla gi guddi rek la fiy nekk guddi ba guddi rek la fiy nekk léegi après mu ne moom jant bi lay jaamu ba mu jaamoo jant bi jant bi daal di so mu ne man yàlla bii de doyuma yàlla boo xam ne bëccëg la fi nekk guddi du fi nekk kon guddi gi ku koy protéger yooyu exemple la muy seen sëriñ si génn naan kii yàlla la mu dee wala kii yàlla la di ay exemple terre la yoo xam ne nit kuy naan ay diw yàlla la da ngeen di sóob du waxi dara boo ko delloo ci alxuraan da ngaa weddi alxuraan ndax yàlla moom lu mu bëgg danaa nekkal mu nekk mais fii sëriñ si ñaata mbir lañ bëgg mu nekk te nekkul te lu nu bëgg sax ci taalibe bi lañ ko mën a amee. yàlla soxlaalu la dara yàlla borom bi subhanahu wa du ku la soxlaal dara dafa ne nga jaamu ko jaamu bi mu lay wax naan la dem na sax ba lay leb naan ana kan mooy lebal yàlla ana lan mooy lebal yàlla waxu la pour ci moom de nga jokkoo ko moom yàlla pour mu fay la ko léegi yow fekkal ak miskin nga dimbali ko loolay lebal yàlla ci yéen jaam ñi ngeen seq lu rafet ngeen deflante lu rafet ngeen jiwante lu rafet loola yàlla nga ko defal loolooy defal yàlla mais nekkul yàlla da ngay bay ba mu ñàkk ñëw jokko xaam yàlla soxlawul sa dërëm <laughs> dafa suur li mu yor dafa doy sëkk mais yàlla boo xam ne ay problème bu kase yàlla boo xam day liggéey ta ay pour ami sax taalibe liggéey day dem ci Bahama yàlla buy takk téere yàlla boo xam day dem ci ci Bahama pour Bahama bi jox ko téere pour mu jox ko kii mu mën ko takk mën a ami taalibe wala mu jox ko ay kii mu def ko ci café yi pour taalibe yokk yàlla boo xam dafay getaru pour mucc kooku ban yàlla la koo leen yàpp bi day nelaw yàlla bi ngeen di wax noonu boo leen demee ca ca ca sëñ ba ñu ne la seen yàlla bii de dafay nelaw da nga xam yàlla bi day nelaw doo ko sa soxla mais yàlla boobu boo waxee du la dégg kooku boo ko ñaanee foo jëm yàlla boobu da ngay ñëw ci buntu gàllem ni taxaw wala buntu néem ñu ne eh sa waay yàlla day nelaw de mais yàlla kay yàlla yàlla moom <laughs> allahu akbar yàlla wax la ci ayatul kursi ne la yàlla du nelaw du gëmmentu nga ñëw fekk yàlla bii di nelaw carrément. seen yàlla bi dafa différent ak borom bi subxanahu wa taala kii du yàlla. te yàlla boobu tamit boo ko waxee sa soxla ci bi muy dund nga ñëw ci buntu gàllam ñu ne la Serigne Diou Sanga mii day nelaw doo ko sa soxla waa ji dem ndax day sëñ bi day nelaw boo waxee du la dégg léegi yow kañ ngay woo yàlla gi mooy bila la seytaane duggee duggal la bokkaale ci sa xel nga dem ba sa gàlle ba nga demee ba sa gàlle nga naan Cheikh Diou may ma yaa Cheikh Diou may ma te yow Cheikh diw moom ngay ñaan noonu pour mu may la sa yàlla boobu ngay ñaan da dof moo tax sa yàlla boobu nga taxaw naan ko yaa Cheikh diw may ma banga nga demee buntu kër Cheikh diw ba nga demee ca këram ñu ne la Cheikh diw day nelaw waxoo ko sa soxla ndax du la dégg nga dem ba sori ko ay kilomètre kilomètre exemple mu nekk Touba nga dem ba Dakar toog Cheikh diw ma nga bàyyi woon muy nelaw woo ko sa soxla ndax boo ko waxee du la dégg nga mën a toog tey di woo dakaar nga foog ni di la dégg da ngay nax sa bopp da ngay sa bopp kooku du yàlla moom déggu la ba muy nelaw déggu la ba nga nekkee ci wetam moom ngay wax yuuxul fii ba suba du la dégg du xam loo wax dara bu yeewoo tey boo waxoon say wax mu yeewu nga ne ko sëñ bi répété ma lu ma la danaa xaw ma ko kooku du yàlla du yàlla seen yàlla bi doyut nga yaakaar àdduna ak alaaxira sa yàlla boobu moom nga yaakaar àdduna ak alaaxira ko sa waay am nga problème am nga problème ndax ba nga taxawee ci buntu këram moom bu dee moom nga yaakaar moom daf laa mënul dimbali ndax ba mu nekkee gàllem noonu toog nga koy woo sa yàlla bi déggu la di nelaw ba nga demee ba sa gàlle nag nga ñëw nga ne moom nga yaakaar àdduna ak boo amee problème nga toll Dakar léegi moom ngay di ko ñaan ko Cheikh Diou may ma lii Cheikh Diou defal ma lii dem nag ba génn àdduna nag ba faatu nag nekkatu fi bokkatu bokkatoo leen sax monde léegi nag nga ne ci moom nga yaakaar moom moo la doy sëkk ci moom nga jébalu di tëkku nit nag nan ko gis nga man <laughs> yàlla bi dee noonu nekk ci suuf si dégguñu nekk ca dundu barzaq moom laa yaakaar dinaa la lekk dinaa la kil man mi toogoon fii di la wax naan la ah say yàlla bii du yàlla jox la détail bii nga ne man ngay tëkku ci man mi nga xam ne damay màggal borom bi subhaanahu wa taala di kat di laa mooy da ngay dàq laa amul amul benn yàlla laa ilaha amul benn yàlla boo xam ni dañ ko war a jaamu ci dëgg illallah ku dul yàlla borom bi subhaanahu wa taala ku toog naan yàlla la waxu leen dëgg léegi nga ne man léegi yow da nga may indil problème man mi dëggal kàddu laa ilaha illallah googu yaakaar ko yow nga yaakaar ku dee fi nga fi nga jàpp moo sa sama waaj pare bokkaale da ngay bokkaale rek même sa yàlla jooju yow sa bopp yow boo xoolee sa bopp da ngaa weddiwaat sa bopp bàyyi xel si sa xel sama waaju yaa ngi takk getar ba fees dell yow sa yàlla googu neen nga moom ma yaakaar ci mu aar la ci àdduna lan moo tax nga takk benn téere nga takk ko ci sa oto nga takk ci ay ay médd rek médd animal ay médd nit maanaam lu dee rek yéen lu dee rek daal yéen yéen daal affaire balaa may gën a am baatin sax ñu dee nekkatuñ fi buñ fi nekkee tus mënul leen ko mais buñ deewee sax fi lay gën a ti kiraama sama waaju béy bu dee ba mooy kiraama ci yéen bëy biy dund mënu leen dimbali waaye fi mu toll nii ca oto ba yow nee nga yàlla bokkaale dangay bokkaale di dem di bokkaale rek boo nee sëriñ ba nga yaakaar waxoo dëgg ndax lu tax takk oto si sa xaaw ci sa oto pour doo accident accident ki ciy yàlla yàlla mooy musalaat ci accident léegi sa sëriñ boobu moo lay musal moom nga yaakaar at nag waxoo dëgg ndax yow yaa ngi takk xaaw ci sa oto ab ndomba pour doo accident accident ba kon yow du sëriñ ba yow nga fa yaakaar ndomba ba bëy ba dee wala nag ba dee wala ñoombar ba dee wala làmmiñu gëléem ba moom nga takk ne moom nga yaakaar kon yow yaa gi fen sa bopp gëmal li nga gis kon yow sa bopp yow dëgguwuloo yow gëmoo sax sa bopp yow li nga sax gëmoo ko yow sa bopp yaa njëkk a wedde sa wax yow sëñ bi nga yaakaar kay sëñ bi na la aar booy yëg ci oto bi ne bismillah barke sëriñ diw rek sëriñ diw saamu ma jaru nga fay takki xaaw sëriñ diw moo yor sa wërsëg waxoo dëgg yow ko da nga ko weddi bokkaale da ngay bokkaale di dem rek yow ndox ba la sëriñ ba jox kanga dem mu dem jox la benn ndox nga wis ko sa kii nee nga ndox boobu moo tax nga jaral mais du sëñ bi kon puus nga yàlla puus nga yonent puus nga ñëpp puus nga sa sëriñ léegi teg nga benn buxaaba buxaaba boobu moo la jox ndox nga wis ko ci sa kii pour mën a jaay. ñaata bokkaale kat ngay gis ñu takk fii di jaay takk fii benn ndomb damay gis gaa yi di ko takk mooy ndomb yi ñuy takk ci loxo bi. ñu ne ndombo yooyu day tax ngay jaay yow bokkaalekat bi taxaw takk ndombo boobu ne sa sëriñ moo sa wërsëg waxuloo dëgg yow sa wërsëg wékkoo ko ci yàlla wékkoo ko sa sëriñ bokkaale da rek léegi yow sa ndombo boobu nga ne yow boo ko takkut doo jaay. am na ñoo xam ne buñ génnee seen kër takku ji seen ndombo dañuy tiit ndax ndomba ga lan yaakaar puus nañ yàlla puus nañ sëñ ba puus nañ ñëpp balaa ñuy am leesewu rek dañuy dem seen kër ñu takk ndomba yëpp ndomba du ma dee ndomba cat ndomba làmmiñ ndomba lii ndomba lii yéen ay der yooyu muy deru nag yi dee yi deru bukki yi gémmiñu tan ya yooyu ngeen jël ngeen takk ko ba dëgër ngeen getaru ba fees dell génn seen ngeen yaakaar getar yi mais sëriñ bi ngeen wax sax da ngeen di fenn yaakaaroo leen sëñ bi ndax getar ba nga yaakaar lan mo tax du duggaat sa gàlle mooy getar bi boo getarul getar bi du la aar mais foofu pose nga sa sëriñ sa sëriñ mënul dara fàtte nga ko bokkaale baaxul ku bokkaale amoo xel doom yaay moo tax koo lii nga jariñu ki te yàlla suñu bon tax wallahi waxi yëpp du dara maa ngi gis ngay bind lépp ah, naan ay amoo liggéey ak maa ngi jobde sama waaju dégg nga maa ngi si jàmm alhamdulilahi rabbil alamin dégg nga dama laa yërëm ci xeetu bokkaale gi dama laa yërëm ci xeetu lu baree bari lu bon dama laa yërëm ci xiif geeg mar gi tamit wax dëgg yàlla moo tax dee leen consommer seen njariñ rek la leen di wax ñi leen amalul njariñ mooy seen sëriñ si di leen dige àjjana ak di leen wax yow mal xiyaam bu teguwul ak ñooñ ñoo leen amalul njariñ subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bokk taali yooyu ngeen def attation na bu baax a baax dégg ngeen leen seen sëriñ si tax a xeex bu leen tax a mer lool te ma delloo leen ci conseil ngeen xeexal seen bopp dégg ngeen allah ne bàyyi leen si yéen comme te moom ñoom duñ ñun oh seen maami ñoom moom ñoom dañ ñoo dépassé ñoom duñ ay nit ñoom duñ ñun ay borom baatin borom kiraama léegi jaratul gii ni xuloo wala xeex léegi sëriñ si borom kiraama yi yéen moom soog ku wax lu leen neexul rek comme te ay yàlla ngeen tamit ngeen ngeen soppi golo ngeen alak leen adduna bi yëpp gis teg ci seen bët nit ki alko ñu xam ne sëriñ bii ku ko moytuwul alko soppi leen ñu muus nit ki di laay ba mu yàgg rek tudd sëriñ bi rek ngeen sopp ji muus ci kii bi da ngeen di gis léegi gars yi bàyyi wax bu ngeen fi soppee kenn muus boo yi nekk fi yëpp di diingat di kontar soppi leen boo ay muus ci kanamu askan wi lii conseil la conseil la ci yéen sëriñ soppi leen gone yi comme tey da ngeen mën a alakaade ku leen tudd alku alak leen nit ñi ci réseaux sociaux yi gis nga bu ngeen ko defee bu leen sonn man ma live mi duñ jóg watawaas bi dàq ne sëriñ sàngam rek ma nekk muus wala ma nekk signal du caaxaan du keneen defaat ko tudd sëriñ diw sangam bu yàggee kenn dootu live ñëpp ay noppi ni ñi da leen di baax da leen di baax soppi leen gaa yi ay muus ak i signal ngeen partage bu yaatu asalaamaaleykum wa rahmatullah